Euh, ñu jékki-jékki gis la ci langue politique yi mën nañu xam bëggoon nañu xam pourquoi cet engagement politique. waaw parce que comme ni ñu ko waxee euh, yàgg nañu aussi bitim réew <coughs> yàgg fa def bëri des actions. Mhm. pour suñu dëkk. Euh, mais bu ñu xoolee mbir yi nu muy doxee dañuy jàpp ni mënuñu continuer toog fu ñu toog nekk ay spectateur mhm. parce que Sénégal tey dañu gëm ni on a tout ce qu'il faut lépp lu ñu am li nga xam ni. moom mën a tax Sénégal développé wu mais lan moo tax jusqu'aujourd'hui le Séné suñu dëkk nekk parmi les vingt cinq pays les plus pauvres au monde il y a problème mm-hmm. alors ñun nag dañoo jàpp ni il y a un problème de leadership loolu mooy problème ci dans la plupart des pays africains nekk au Sénégal kese euh, moo tax nag ñu jàpp ni gouvernance dañ ci war a accentuer. moo ñu am les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ah, il n'est jamais trop pour bien faire. dëgg la vous êtes jeune aussi certes mais euh, est-ce que du ñu mel ne yow ñoo waral cette situation dans la mesure où maa ngi koy wax vous êtes basé mm-hmm. euh, de maa ngi def sama kéemtanu laay kattan. Mm-hmm. pour apporter sama pierre au développement de mon pays. parce que je suis comme vous le savez fondateur benn bonne ONG bu tudd Stand for Africa. Mm-hmm. bi nga xam ne tey day jàppale ndaw parce que xam nañ ni suñu dëkk. am na ay compétences yu bare mais malheureusement du ñu am encadrement wala les moyens. pour mun a développer wu. moo tax ma lancé ONG bi tudd Stand for Africa ñu ngi joxe des bourses fu ne ci Sénégal ay centaines de bourses chaque année. ñu ngi permettre à des ay ndaw ñu mën a voyager <coughs> dem à par exemple aux États-Unis il y a pas longtemps on a reçu euh, une trentaine de d'entrepreneurs sénégalais. ñu ngi former également euh, des jeunes à l'entrepreneuriat parce que xam nañ tey dëkk bi dafa soxla. euh, de jeunes entrepreneurs. Mhm. yi nga xamante ni ils ont des un esprit créateur. mais ñu mun leen former jàppale leen jàngal leen les les soubassements de l'entrepreneuriat mais aussi tijji leen des ouvertures pour que ñu mën am accès au financement. Mhm. li ma mën de manqué def. Ah. aussi par ailleurs. je suis à la tête de la chambre de commerce. Euh, Texas West Africa. africaine bi nga xam ne tey euh, mën naa ne ñoo représenter Afrique au niveau des États-Unis mm -hmm. donc yi nga xam ne tey lépp lu ñu soxla ci wàllum. Euh, investissement direct étranger dañuy jaar ci ñun la preuve on a déjà eu à recevoir beaucoup de chefs d'État mm -hmm. on travaille dañuy travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs des pays d'Afrique aux États-Unis yi nga xam ne dañu di yombalal liggéey bi di leen invité ci ay forum ñi nga xam ne dañu mettre ci ay table ñu mën a waxtaan ak euh, ay investisseurs yu nekk euh, au niveau des États-Unis yi nga xam ne destination Afrique ah, internationale ñun ñu ngi def